asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu leen di nuyu di leen ziara di leen balaax di leen balaax di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak saadatu daar yi ne di ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dañoo dikkat yéen ci gént foon foon nit wala nit foon la wala di foonante ah, waa arab di ko tudde alxubla wala France di ko wax bijou anglais di ko wax kiis alxubla nag baatu xubla maanaam ñu bari dañ koy tekkee alxubul mooy loo xam ne ak juboo la wala ak déggoo wala ak nangu waaye nag am na ci xeeti foonante yoo xam ne ñaari arab koy def danañ ci dikk masalan bu fekkee koo xam ne kuy ñaan aajo la kuy liggéey tur yàlla moo xam xalwa wala riyaada nga gént ku la fóon loolu ñaare màndargab ijaaba la te tamit ñaare kuy liggéey tur yàlla lim yu baree bari lu mel noonu dana koy faral di ko dal rawatina ñaare bu latiif boo ci liggéey li lim yu bare bari mën nga gént ku lay mel ne am ku lay fóon wala sax mu dikkale kilifa goo xam ne ku ràññiku la ku ràññiku doon mu jël làmmiñam dugal ko sa gémmiñ yu mel noonu day dikke liggéey tur yàlla maanaam mu jël làmmiñam dugal ko sa gémmiñ ah, ak yu mel noonu bu koy màcc wala xeer yu mel noonu loolu ñaare fi mu doon wala ak ak nangu loolu lu baax la ndax xam nga gént moom noonu la lay dikkee gént nag di foon loxob kilifa ah, wala ku gént di foon loxob ku faatu wala ku faatu di la foon loolu yàlla dana tekki mbégte wala koy ñaanal lu baree bari wala koy faral di ko wala koy taxawu ginnaawam mu bég ci yow moo xam sarax yoo koy defal la moo xam ay fida wala istixfaar yoo koy defal ak yu mel noonu ba tey nga jékki-jékki nit foon nit foon la wala ngay fon nit loolu dana tekk ak jubo bu fekkoon na ko xulool la nga gent lu mel noonu dana tekk ak jubo dana tekkit ak cofeel ak déggoo masalan bu fekkoon ne koo xam ne day listixaar lu mel ne ñaar ñoo war a ànd moo xam ànd bu liggéey la moo xam àndub tukki la moo xam sax àndub soxna la diggante jëkkër ak borom kër nga gént di ko foon wala mu lay foon loolu su fekkee ko bëgg ànd liggéey la lu baax la ak déggoo la bu fekkoon ne soxna la wala ngay listixaar jëkkër ba tey ak nangu la la lu baax la bu dee xam day farandi di lu bare ba di fol lu mel ni kaamilu alxuraan loolu dana tekki ak cofeel gi nga am ci alxuraan loolu it ba tey lu baax la koy faral di nafar wala di toppatoo alxuraan yu mel noonu dana koy dikke bu dee ko xam da ngay gént nag di foon sa doom wala sa soxna loolu dana tekk ak cofeel dana tekk yërmande bu dee nag foonante yi nga xam ne ñaare ju bare bare raba koy def masalan day mel ni dalay foon foon boo xam ne day bëgg a joteeg yow waw foon foon boo xam ne day bëgg am ak yow rapport léegi ne sàmm la ci mel ne lu forcé ak tamit ngay faral di ko gént yu mel noonu nag gént yu bare bari te jege mën na laa dikkee nag koo xam wala koo xamul ba ci sax euh, koo xam ne da ngay am kersa di ko nettali benn mën naa ne sa waajur wala mu sa yaay wala sa doom yu mel noonu xam ne day foon foon boo xam ne day bëgg am ak rapport. te ngay bari yooyu noo koy génte ci ay façon yu bari loolu nag yu mel noonu rab koy def bu fekkee danga koy nemmiku ci sa bopp wala bokk sa doom di faral di la ko wax loolu danga ciy teel a jóg ndax rab moom lu mu gën a yàgg ci nit gën a dëgër gën a di gën a dëgër bopp mm, noonu la leen yàlla binde kon am na foon yoo xam ne ay tegtal yu baax lay joxe waaye am na ci fon yu bare bare yoo xam ne nag rab koy def man di fonante yow bëgg am ak yow rapport ak yu mel noonu nga koy gént lu bare bari nag yooyu tegtal la ci koo xam ne dafa am faru rab wala bokk mu am coro rab coro mooy góor am rab bu jigéen topp ko loolu nag lu yaatu yaatu la ci jamono ji kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci ci ci ci Maodo boobu ngeen way di abonné ci chaîne bi ak diko ko tasaare ndax mel na ne bokk na ci li yëkkati chaîne bi wasalaamaaleykum